mënuñu xëccoog leen kenn suñu borom kenn mënu xëccoog moom parce que lii muy def moom pare na démb ak barki démb mais daa bébé boobu moom wax dëgg yàlla moom lañ doon seet si nii ba xam ndax euh, crèche la ak euh, pédiatre bi ñoom ñaar ñëpp la wala parce que immeuble yi am nañ tuuti euh, kii xaw ma nag waaw man dara laaj xamagul maa ngi nii ñëw taxaw daal am tiis wu rëy nag tiis bu méttee métti métti parce que dama ñàkk yaayam yàggul dara wax dëgg yàlla lii bu ci toppaatee dina métti trop ci ñun. mais nag jaam bi day nangu dogal day nangu dogal waaw ñu ngi dëkk kàcce El Hadj Malick Sy kon jàkk ñu ngi dëkk kàcce El Hadj Malick Sy affaire bu métti nag bu diis moo xam ne wax dëgg yàlla bébé bi moom yal na ko fi yàlla bàyyi ba ñu koy takkal soxna ci barke yonent bi sallallahu alayhi ñëw nañ daal xamaguñ ci dara ñu ngi taxaw ndaxte nee nañu Pejaati bi la ak crèche te ñaari immeuble yooyu denduñu woon am na tuuti distance xaw ma gu ma nag lan moo xew ci biir wax dëgg yàlla maa ngi nii nag ci buntu hôpital bi ak tiit ak njàqare ak jaaxle yal nañu yàlla defal jàmm te wax dëgg yàlla lii daal métti na daal métti na daal xaw ma nu mu demee ci négligence la wala xaw ma nu mu demee mais lii war nañ cee wax lii moom war nañ cee wax parce que hôpitaux yi li ci xew ëpp na daal ëpp na daal c'est trop lii moom ëpp na moom wax dëgg yàlla yal nañu yàlla dolli jàmm jërë ngeen jëf merci jërë ngeen jëf merci.